création originale bi c' est Amadou Sékou moom moo na ko yàlla yërëm moom moo njëkk a décédé ay 82 je pense te léegi li ci gën a impressionnant mooy Ousmane daf ko jël exactement comme si moom moo ko créé. tu as l'impression tu as l'impression que moom moo ko créé parce que loolu c' est important parce que voix bi dafay répondre ak technique bu mu ci def et tu sens sa couleur vocale ak énergie moom bu mu ciy def te loolu et puis tu as les voix superposées qui viennent. Les voici proposées de Feu Ismaël Ndeye Sall yaram seexu boo ñu boole ñetti waay force yooyu moo doon force Tambacounda ñun loolu loolu la ñu puiser en tant que Tambacounda en amenant moo tax même suñuy album yi yi nga xam ne moom la njëkk def wala suñu création njëkk def pour l' international da ngay sentir couleur. am na toujours. da ngay sentir tu le sens. d' accord tu le sens. d' accord alors quand on parle des

booy joué sa xel mooy joué te yaa l'impression que joué woo parce que xel mooy joué dafa mel ni nga yàgg dawal booy dawal doo xool parce que xel mooy dawal tu parce que bët mooy dawal doo xool alors maturité lay doon boo nekkee xale ngay créer benn morceau même morceau bi ngay créer mën na nekk mën na mën ko xam nga parce que aussi musique beaucoup ça ça dépend lan mooy sa public surtout surtout si tu vises l'international dafa ça repose pas la facilité mais sur la simplicité pour oreille bi mun ko capter. Mhm. te loolu maturité moo la moo la jox alors maturité aussi moo la mën a téye si benn saa mhm. parce que boo amoon expérience ak maturité boo ko boolee dangay ngay taxaw fi nga taxaw. d'accord dara yëngal. d'accord alors dinañ ñëwaat ci ci tolluwaayu frère Guissé parce que man am na lu ma si gis mu xaw a changé mais damaa bëgg nga jëlaat guitare bi ah. li ma sama chéri. waaw mooy ah, sa chéri. sama chéri <laughs> d'accord. <laughs> affaire bi nekk am nga am bu la dul mës a trahi <laughs> xam nga bëgg waaw ah, parce que ci seen carrière am na benn bu ngeen def je pense que Siré waaw Siré laa bëgg nga joué ko ñu moom ba léegi dafa xew ah Siré ah, nga Siré dafa xew ba léegi parce que li xewoon moo moo nekk ba léegi mhm. boo gisee les séries yi génne instant yi mhm. ça traite beaucoup de ça mhm. les xam nga bété bété les Siamkakast ak xam nga euh, ensuite euh, problème niveau social mhm, niveau social parce que des fois nit ñi dañuy fàtte nit euh, dafay màgg wërsëg ci yoon la nekk wërsëg bi ci buntu de wërsëg ci yoon la nekk ci lañ koy fekk ensuite que nit yàlla dafa sàkk nit ñi yemale nit ñi ñoo ci rajouté leneen loo xam ni bokku ci lu mhm. te euh, yàlla waxul kenn dara Sexy, but it's so unstable. saying? iPhone Mas. To feel diggante Sakito Mamadou ñaar ñooñu dañoo bëggoon a sëy waaw waaw waajur mbir du fi am ci mujjee am. neexul yàlla waaw waaw waaw ay foon ma si ree kay di dem yow sa série booy doxoo yaa non non non non kay non non kay bu waree bu waree sa série booy ñu war ko <laughs>

xanaa gis leen ma fa ma ànd ak si dee eh. takkusaanu yaraax xanaa eh. gis leen ma fa ma ànd ak si dee te keppaaru garab ñi woon park ànd xanaa gis leen ma fa ma ànd ak si dee doxal toog moom bëggee ñu yaraax ah. yow xam nga way bi yaa est-ce que doo ko dem doxatu yow. très belle chanson en tout cas c'est une chanson qui nous a beaucoup beaucoup ah. bercé. jublu bu nga xamante ni. dafa neex parce que parce que je me dis que c'est une chanson d'amour et quand on parle d'amour mhm. dafay neex ah. c'est fort ba ku koy mhm. déglu sax daf koy sentir mais mais tube bi tube bu graaw la ça fait le tour du monde ah oui ah oui Cheikh il a été très très très très euh, mais temps yooyu bon Cheikh célibataire la woon ba mu koy bind de est am na est-ce que nekkul benn affaire. <laughs> tonton Cheikh nga baax rek lay wax ni lii mënul nekk aspiration kese. waaw hmm. mais te li fi xam nga xam nga les euh, d'abord l'art c'est la sensibilité les hommes les plus sensibles mhm. du monde. Mhm. les hommes les plus puissants du monde de la terre nag ñu gën a sensible ce les artistes. moo tax doo leen dégg sax ci histoire. dañ dañ dañ doon réunion dañ doon réunion suñu réunion syndicale bi mm-hmm, démb mm-hmm. mais gars yi ne mais il faut mais man leen non gars yi artiste c'est un artiste. mën na def nii bu koy def day fekk sës na. Mm-hmm, tu vois parce que artiste double face la. buy dem day dem. mais bu taay aussi. dafay taxaw quoi parce que question de sensibilité artistique c'est hyper important. moo tax suñu woyee day dal ci kaw day dal ci kaw ñu ñëwaat ci sa playlist musicale da nga may dox sa deuxième chanson préférée comme ko. waaw man euh, am na koo xam ne daf ma marqué aussi dans la musique. ça c'était à mes boobu commencé bu ma jouer guitare commencé jouer commencé jouer au ma dara. Mm-hmm. mais dama doon woyantu ni sama xarit yi nekk te xam ban classe la def boobu. Hmm. maa ngi def CM2. CM2. ma gis benn gain yore harmonica yore guitare mais man kii est-ce que nit la. mais gain boobu kan la. ma ne naka la nit mën a jouer yore harmonica di nit ba pare di di c'était xam nga c'était kii c'était Ismaël mu jaaxal ma moo tax harmonica man mooy sama premier instrument. sama harmonica. waaw lii man guitare après laa ko joué mais man instrument ba ma je me la sixième ma nekk internat à lycée au, au lycée Blaise Diagne mm-hmm, mm-hmm. ma ciy profité di nuyu sama gars yi waa AILBD les anciens de l'internat du mm-hmm. lycée Blaise Diagne boobu harmonica moo nekkoon sama instrument fa mu fekk maa ngi yor harmonica Ismaïla li mu woy bari na ban ma li ma xale euh, parce que xam na boo nee taajaboon sax taajaboon sax ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp xam nañ ko mais man sama morso fétiche ci Ismaïlo moo doon Africa. jàmmu Africa waaw pas jàmmu Africa xam nga jàmmu Africa moom lay ñaan ba mu dafa am beneen morceau bu ak doon wane ñoom Nelson Mandela Kwame Nkrumah Africa suñu continent dañu maa ah, déglu. te liggéey affaire bu nice. wala regarder ça. xam nga wala regarder ça. parce que Jammu Africa. Euh, Jammu Africa bi nag ba mu